juróom-ñeent fukk la ak juróom-ñeent waaw juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu tombeek ismullahi al adam turu yàlla yi mun suratul xijri màkk la wàcci saar yi nekk màkk waxoon nañ la la li xam ne moom la ñëw di nettali lu jëm ci kenn ak sunu borom gi ak nubuwa yonent bi ak dekkal ak fay saar wi nag li tax ñu tuddee ko suratul xijri li anna allaha taala dakkara ma xadasa li qawmi saalih wa hum qabilatu samud su morom dafee nettali nitu saalix ya te ñooy giir samud ak seen kër ya nga xam ne moom lañ tabaxoon ci seen doj ya ca diggante madinatu saddum wa kaanu ashadun yantixtuuna aljibaala yaskunuha dañ doon jël ay doj di ko yett <clears throat> def ko ay dëkkuwaay kaanu yan xituuna min al jibaali buyuutan dañ daan nekk di yett ay doom ay doj bu ñëwee buñ fekk doju lu mu gudd gudd ñu ko def ko kër di ko dëkkee moo tax saar wi sunu boroom nettali ko tuddee ko sooratu xijri bismillahi rahmaani rahim alif laam ra tilka yooya ayatul aaya la kitaabi téere bi tilka loolu ayatul kitaabi mooy aaya téere bi wa qur'aanin alqur'aan yoo xam ne mu biinun aji bir la ci leer rubbama mën na am yow wat du mu nat mu sopp alladina gaa ñi nga xam ne kafaru wét nañ law kaanoo bu nekkoon muslimina di way nekk julit bu ëllëgee ñi nga xam ne doonul ay julit danañ cofeelu lool ba ñu nekk àdduna nekk ay julit ngeen ne ko def moy xewal gu landi nga xamne sunu borom xewale ne ko ñu bëgg monté top darhum ko zarhum rek yàqulu na ñuy lekk wa yatamattau na ñuy xeewlu ci banex wajul fihim ñuy mébét rek al amalu ay dik ay mébét wajul fihim ñuy yitté wo al amalu ay mébét fa sawfa xel seef na yaalamuuna ñu xam ne seen mébét yoyu fii rek la yem wa ma ahlakna alakuñ min qariyatin ci benn dëkk ilaa wala xaaluhul ñeel na ko kitaabun téere boo xam ne maalumun bu ñu xam ne maa tasbiqu jiituwun min ummatin ci benn xeet ajal lahaa ab digam wa maa yastaqiruuna te yéexewuñ tamit benn xeet wa qaalu ñu ne yaa ayuha alladi e yow mi nga xam nuzila alayhi zikra yow lañ wàccee ci yow alquran innaka la majnunun yow daal li njàpp mooy ab dof law ma taatiinaa lu tee nga dikkee woon ñu bil malaayikati ci ay malaaka in kunta ndem nekk nga mina saadiqiina ci way dëggu yi suñu borom tontul ko ne maanu nazilu duñu wàccee mukk almalaayikatu malaak illaa bil xaqi lu dul dëgg wa nekkuñ isan léegi munzarina di xaarandiku innaa nahnu naka ñun suñu borom nazzal na zikra ñoo wàccee alquran mi le wa inna lahu la ak lu mante xewit ñoo koy ku ko bëgg a yàq kay yaa ci yàq wala qad arsalnaa wér mu yónni من قبل قبلك لوجيت يا محمد من شياع الاولين تي اي قيد يو خامني يو لوجيت وون وما ياتيهم تي ديكيول لين من رسول تي بن داو الا كانوا لودول نيكون نان بي جا داو لك يستاجيون ديكو سابوت كذلك كوم نون نسلقه لنكو سوبي في قلوب المجرمين تي خولو نيغا خامني داني ويد يالا سفان لا يؤمنون دون جنبه تندويا وقد قالت ويردم ويسو sunnatal awwalina dox li ña nga xam ne ñoo fi jiitu woon law fatax naa bu ñu ubbi woon aleyhim ci ñoom baaban ab buntu mina samaay mu tukkee asamaan fa sallu dañ mujj fii ca buntu ba yaaru juuna di ca yéeg la qaalu dañ wax ne innama luy mbir tey mbir sukkirat bu tuddeef na absaaru naa gis gis-gis bal li fi nekk ndax ñu nekk nañ xaw nit ñoo xam ne masxuur yi ne su dat mën a sukira teref na abu saruna naa suñuy gis-gis balli fi nek nek xaw ma masxuur ne ñun ay nit la ñoo xamne ne ay jëberkat dañoo jëber maanaam wala xal mu ndax masxuur ñun suñ bodi yi dañ ko tak ndax bu yalla ubbi won ab buntu ci kaw asaman ni diko gis dañ mujji di ci mën jaar di yéeg fa ñu mujj suñ bodi lañ jaber rek ñun dal dañ jàpp ne aw xeet lañ mu jaber ndax li waji wat ñu tamit muy ab bunt sar ba xaw dem kaw asamaan yaber kese la ko defee hmm. kon ki mënta gëm ak ki la mënta gëm hmm.